mais yamul foofu coow li fan yi mooy sac à main bi soxna si njiitu réew mi yor à main boo xam ne daanaka ñetti million ci franc CFA lay jar. bii Vi. allo. boutique première daal la ñuy rond-point Sànn sac bi léegi mi ngi nii am na ay couleur. Oh, waaw waaw kii allo la nekk du ñu leen leeral ba xam moo ko ko jaay wala jaay am na bu 15000 am na bu 35000. waa seen duul yi ngeen di duul naan ay 3 millions ki 2 millions. ay nii. ñoo ko jaay wala jaay ñu ko da ngeen leen ci leeral dara ndax bii privé madame deuxième dame la. wala kalo. Sadio yi ngeen nekk yéen waa APR bàyyi leen ko. wala yéen ñi manipuler bàyyi leen ko manipulé manipulation bi moo ko jaay wala jaay ñu ko rek dañu ci leeral dara waaw. boutique baa ngi nii yàlla. sa rompé Sandaga la nekk. waaw manipulation bi tamit du jàll mi ngi nii salaamaaleykum ma leen di ziar Naby Vision man li waral li waral tax ñu naan kër dof yi yaakaar naa ne loolu ki ki ki ki ki ki xalaat loolu ba ba ba ko xoolal bugaan bugaan li ñu war a fay impôt bu milliard it muy lijeenti ya ya saag bu jar 3 millions xaw ma wala 2 millions 500 seetal ma li seetal lool ki dof plus la sama gars yi vidéo bi la doon bañ mu gudd mo tax ma dag ko foofu mi ngi jema tangal nak a ci ci jamono joju nit ñaa wara jënd ordinal xaw ma lan ak lan te moom barki sëñ fallu xola mi ngi tok ci ay millions yu bari yo xamne senegal ko mom yoy kay mom kay bu dee ñewante na ñi jënd ordinal rek na na na fay impôt moom su fayee impôt daanaka lu bari gis nga dund gi wañu wi sax wañ ni ko wàññee nii lu tax mu xaw a cate na fay a fayagul impôt bugaan kay mom bu dee na askan bi rek han ah? mom na fay impôt rek mom kay loolu kese lañ ko wax na fay impôt. alaykum gay ma maa di bëgg wax di leen siyaare ba no non bugaan nag barki alxuraanu karim ay mbokkam nañ tee bugaan gay dani bugaan gay dani dofna na de gi ñaacal dem len ngeen faji ko de. Bukan gay dani ragalal sunu borom Nabi vi ragalal sunu borom te jaamu ji yalla ya xam nga leleg da ngay tok sax mais yu melni doko meuna muñ quoi bugan li du opposé wu bu fekke da ngay opposé wu da ngay teglu deuguer nga wax sa xalaat ci rew mi wax même bo yoron rew mi foko meuna jeme mais li ni mais yi yi ni affaire waye de la en fait yow ak boy nga andal barki alquran li dafa passé gis na boy nga andal ñu naan ay waw ay ay ay dampulu mais yoy dafa passé actuellement ni ñi ngi ci 2024 bu dee da nga soxla réew mi tegal lu dëgër lu nit ñi mën a dégg mais ay saag yow ñun ay ay businessman lañ xam nañ saag bi lu ñuy lu muy jar duñ ci commenté mais bu ko neexee na yor saag buy jar 45 millions moo tay mais yow dof nga de barke yonent yàlla Muhammad da ngay sànku de non da ngay da ngay li li mooy lan ni yëf waaye di yi nii. dama yaakaaroon ni dof day wax waxi dof ak yi sagar waaye dof du fenn cent jours yi nga ne dañuy pasar pasaree alal ba réew fekk sax ci réew mi alal ba koy pasar pasaree réew mi amul alal sax bu ñuy pasar pasaree saagu première dame boobu comme la deuxième dame bi saag boobu quarante cinq mille nag da sàcc suñu xaalis jooni jooni te buggaan moytu ma gis ngay sama lii. Naby Vision. naa la noq de su ba ñëpp lay wàcc buggaan moom mënoo boole sàcc suñu xaalis jooni jooni. ba pare wul bitiku ni da nga ñu manipuler ñu duñu ay téléphone yoy manipuler quoi duñu ay playstation ñu sa jorna gis nga sama li bat de baseball bi bat de baseball la bat de baseball dina ko bat ci sa lepp lay wàcc lu leer la lay wax bu gan gaan sol sac xana nga sol saagu cinquante mille euros sax wala saagu cent mille euros ba xam lu ci way man jaajëf merci tout court c'est que sénégalais yaay nafiq lañ Absa elle a fait une, partie de son cursus universitaire ici en France. Elle a travaillé pour une banque et aujourd'hui elle est coordinatrice de projet à l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Je pense qu'elle gagne mieux sa vie que Bassirou Oujoma Faye au domaine, aux impôts et domaines, comme inspecteur des impôts. Bien mieux. Par contre, on a eu ici une première dame, chômeuse et milliardaire. Hein? C'est fi fondation se servir du Sénégal pas servir le Sénégal se servir du Sénégal avec milliard. milliards dissoudre fondation avant de dégager Nabi Vision. noonu la ñu bëgg a xam xaalis boobu fu mu Hmm? ay mbam ngeen ay naafeq ngeen. Absa première dame C'est qu'elle aussi première dame jëndal lu la neex 3000 mom moom nat. ah ces petits joueurs nag franchement première dame doublel triplel. ku mer nga jël boom ku mer nga jël boom ni tu le fais haut et court wa gaay tay ñu si mais Bougane yow li lay boy di wax ne sa xol bi mën na tangal café mais lool deug la quoi mais Bougane la motax nga mëna fenn yow saagi di jar 35000 lay saagi di jar fi colaban bi nga ñew fakk ne yow mën nga jaxase peuple bi ak jomaay ak ay jabaram mun nga fexe ba boole fi ba boole ñu suñu diggante quoi fen ngay bàyyi yow Bougane ak kilifa moomul sa yii ngay def yow dama la seetlu depuis jour bi ñu tuddee di nga fa jour bu ñu tuddee impôts yi ba léegi ne danga am problème yow dangay xëy di wax léegi tooyatul léegi da ngay wër di sos Bougane munoo dem nga wuti micro-ondes dama nga wuti micro-ondes ndax nga noppal sa bopp balaa ngaa toog di nga toog ba sa xol bi di wadd nii nga téye ko nii te te doo comprendre sax mënoo tëj sa làmmiñ bii yow am nga leen la doy sëkk dama nga fay impôt saa ji trente cinq mille ngay xëy naan ay trois millions. non vraiment trois mille cinq cent euros. trois mille cinq cent euros la deuxième dame saag bi mu sol démb trois mille cinq cent euros la ko jëndee trois mille cinq cent euros vraiment nag deuxième dame nañ la wax dëgg deuxième dame deuxième dame beneen yoon beneen yoon en tant que deuxième dame. boo demee bay sol saak xanaa nga sol saagu cinquante mille euros sax wala saagu cent mille euros ba xam lu ci waay man defal lu la neex nga bàyyi opposition bu bees boobu noonu yéen opposition bu bees bi xanaa dem dem ko ngeen di wu ci ay xanaa nit ku sol saag maanaam kooku jëkkëram moo ko ko war a jënd yow kay boo yorul trois mille cinq cent yoo jëndee saag bul wax ni nit ñi yoruñu trois mille cinq cent euros yu ñu jëndee saag yow yoroo loo jëndee saagu bi temps bul ne moom yorul saabu lu mu jëndee saa jëkkëram moo ko war a jënd ñu nag may leen nit ñi jàmm ñu mbal mbal nekk un migrant de luxe fu nekk mu teg fa tànk. Euh, patriote nuyuwaat naa leen patriote. Naby man li ma koy def nii sax neexuma te maa ngi ciy jégalu patriote yëpp mais kii moom wax dëgg yàlla maanaam dañ ko war a dañ ko war a séexal maanaam nañ ko séexal bugaan. russi dañ ko dañ ko wara a njabotam njabootam gi maam doomi bopam yi lañ ko wara a bu gan man mësa ma yalla xam dañ patriot du ko wax dara lu ko metti parce que gan bu gan dama yaxar tangoru gazam bi moko yoré yore <laughs> barke sëñ day so maam euh, président Sonko dama lay ñaan li solennellement maanaam est-ce que doo expliquer Bougane la manière d'opposer parce que man dama seetlu de dalay roy yow Bougane bu ngeen seetloo président Ousmane Sonko la bëgg a roy mais xamul nan la ko war a royee day sonk sonklu te euh, saa mu ngi wax gars yi di ko ree nee na euh, fan si club bu ñu président Ousmane Sonko bu doon am fan si club <laughs> mooy président fan si club maam day bëgg a sonk sonklu te xamul carrément fan la war a jaar nan la war a doxalee nan la war a waxee. Bougane du caaxaan ne dama maam li ma li ma lay wax nii dama lay laaj biir rek tegiwut beneen maanaam man su ma doon yow su ma doon yow personnellement en tant que peut-être papa ndax mën nga ma jur mais su ma doon yow damay fexe nu ma régler sama tele bi d'abord coo ci génne nga fexe sa base politique nga téye ko beneen bi mooy nga fexe affaire parrainage xam naa ne bien sûr que ne dootu am mais nga fexe njamb politiquement ba dëgër maanaam man su ma doon yow damay xool par exemple Pastef maanaam fi nga dëkk xaw ma Pastef Mermoz xaw ma fekkee Mermoz nga dëkk nga fexe nga nga nga nga euh, maanaam base politique bi nekk foofu noonu Pastef boobu nga fexe nekk président bi parce que yow wax dëgg yàlla du ma ne du ma ne xam naa politique carrément de mais man d'après li ma gis ci politique yow mënoo politique bu gaan parce que politicien boo xam ne yow maanaam yu yu yu absurde rek nga nga ngay nekk di di di di commenter yow saagu première da pour deuxième dame bii nii nit ñi nga xam ne waa APR ñoo ci jàppale si nit ñu naan xaw ma la rek <laughs> saag bi maanaam même bu doon jar li nit ñi di wax sax loolu du loolu du problème loolu problème. ba que fi ni lu mu gatt gatt gatt gatt gatt gis nañ fi sax bu gars di kudd rek kudd rek gis naa fi premier dame bi joge fi jabar Macky Sall jënd fi kudd trente trente cinq kudd laa la de kudd 35000 cinq mille ngeen xam nga ne ku leen président Bassirou Diomaye fay mi dana baye jabar muy jënd bu ay 2 millions nangam war ngeen war ngeen war ngeen xoolaat arrêté mais lool anyway duñ ci wax parce que eh, fi nga xam ni ñu ñu yor échantillon ñu ngi génn di wax ñukoy jaay xana ñoko wara gëna xam prix bi beneen bi moy nga euh, président en ah, mo waxone dañuy couper France ah, du mu fa di dem <laughs> mais bugan yow bugan yow bugaan kii yow bugan li nga defoon ci te rappel moy euh, bi ñuy bi ñuy euh, annuler ñuy si je me trompe pas élection présidentielle mu tombaleeg finalu coupe d'afrique bugan da nga génn réew mi dem seetaani ko yow yow mi le Sénégal intéressé yow mi yàbb bëggul réew mi mais kii na sa ce que pour ñi nga xam ne ñoo fa représenté Sénégal muy ci olympique bi na serait-ce que ñooñu rek président dafa war a dem parce que gis naa mu def acte bu acte boo xam dama ko dama ko saluer dafa dem ci ñoom taxaw ñoom di waxtaan mais sa doomu réew génn di di jongante ji ci beneen réew nga dem fa nga ne waroo fa dem te yow sa doomu réew finaalu de ñeneen na doon finaalu nga dem yow di seetaan bugaan Bougane te ngay te ngay te ngay ñaan président Ousmane Sonko audience mu expliquer la comment on doit se poser ngir yàlla ndax nga may ñu jàmm ni ngay opposé baaxul buggaan bëri nga wax bëgg nga futilité maanaam yow doo débat ci lu am mosuma dégg ngay débat ci loo xam ne dafa am intérêt ci ci réew mi wallaahi. Naby Vision. rek yow critique boo xam ne <laughs> doo ni solution Bougane Bougane daal man man man wallaahi man ma sañoon yi kenn kenn du la wax dara loolu mit kii nañ ko seetaan nii rek.